internet Sénégo TV ak kawteef dal leen jàmm tey ci ajuma bi coalition Yewwi dafa bëggoon def lii di manifestation ca place de l'obélisque moom nag bam bindee daal di joxe préfet bu ndakaaru ci alxames bi lañ daal di ko dàkkal ba daal di bañ boobule manifestation wala sax rassemblement bi nga xam ne waa Yewwi dañ ko bëggoon def ci ajuma bi préfet nag la teg ci seen loxo bokk na ci li nga xam ne

mooy travaux ba am ca place de l'obélisque noonu nag la waa ci daal di nangu boobule dogal wante du tee ñoom ajuma bi ñuy jublu dinañ defaat beneen demande boo xam ne dinañ def seen mobilisation wala sax seen manifestation ngir dénoncer li ñu naan dérive président Macky Sall équipe Sénégo ak Kawtef loolu nekk prétexte ñu daal di doxantu ca boobule lieu muy place de l'obélisque ak li nga xam ne préfet teg na ko ci loxo ñi nga xam ne mooy yeewu askan wi ngir dàkkal seen boobu manifestation ba ñu yeggee ca lieu ba nag muy place de l'obélisque en question liñ fa mën a seetlu mooy naam li nga xam ne préfet daal dina ko wax muy travaux yi nga xam ne dafa am ca lieu ba gis nañ ko fa ndaxte it bu ñu xoolee ca wet ga technicien de surface yi ñu ngi nekk sur place wante it ay camion ñu nga gaare suuf béton lépp loo xam ne rek dafay jëmal liggéey bi ñu nga euh, sur place kon mu xel mën naa jàpp ne euh, préfet motif bi nga xam ne teg na ko ci yoo ci loxo waaye wi askan wi xel mën na ko nangu wante it ba ñu yeggee ca place euh, de l'obélisque la gën a attiré suñu attention bokk na dispositif sécuritaire bi nga xam ne fekk nañ ko sur place dispositif sécuritaire boobu tax na boo ñëwee ba ci rond point koñ yi nga xam ne dafa wër rond point place de l'obélisque lépp dañu ko barricadé dañu ko tëj bu police taxawee ci wet ba beneen wet ba di nga fa gis ab gendarmerie seen élément daal di fa taxaw ñu defi tour dem euh, ca place de l'obélisque jàll Colobane jaar Samba si Samba Jeeri Jàllo wante it ñëw ba ca rond point Gumba foofu yëpp mën nañ faa gis dispositif sécuritaire bu am solo bi nga xam ne teg nañ ko fa ca it place de l'obélisque bu ñu xoolee élément de police yi fa nekk ak aussi seen motuwaay yi nga xam ne daal nañ ko fa teg lu toll ci juróomu oto yoo xam ne ay blindé lañ ñu ngi nekk sur place bokkul ak mini camion yi nga xam ne moom la élément police daal di nekk foofu ay it ak ak policier yi nga xam ne ñu ngi nekk ci place de l'obélisque mu nekk dispositif sécuritaire bu bëri boo xam ne it sénégalais yi naam buñ ñëwee bu ñu xoolee rek dañuy jàdd ndaxte dañu barricade yoon bi nga xam ne dañ ko war a aw malgré que li nga xam ne mooy manifestation wala marche bi nga xam ne waaye Yewwi daal nañ nangu li nga xam ne mooy ndogalu préfet ba tey it bu ñu xoolee boo xëyee ci suba si ni nga ñëwee ci tali bi avant communiqué Yewwi di ñoom tali bi yaawoon na dafa mel ni nit ñi ñu ci bëri génnuñu woon wante it manifestation bi ba waaye wi génne seen communiqué gis nañ ne tali bi mu ngi commencé bëri ay nit malgré que nag li nga xam ne mooy dispositif sécuritaire bi nga xam ne mu ngi ci tali bi muy waa police ak waa gendarmerie ñu ngi fees dell ci mbedd ndakaaru yi rawatina fi nga xam ne mooy place de l'obélisque fii ñu waroon amalee eh, boobule marche You're chilling Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.